aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen ñi topp seen bi di Diwane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di wax ni ngeen wéy di abonné tey partage vidéo yi te di ko amee yéen ñi nekk ci réew mi ak bitim réew mbokk yi leen présenté li nga xam ne bi mooy faqat gi yàgg ngeen a dégg ma di ko wax ci seen bi tey nag ñi woon leen ko bu baax a baax lii mooy foqat bi xam nga ni liggéey bu xaw a jafe tuuti la waaye nag képp ku xam dara ku nekk ba ko xoolee di nga xam ne lii dula ndaw ndax xawaatim la bu génn ay tur rawxaan yoo xamante ne bii ñoom laxtatiil ànd ak basmala ànd ak miftaaxul arsaq ak lim bi nga xam ne mooy limu doomu aadama yi ak fidda waaye nag ñu dugal ci aaya bi wa yansuraka llaaha nasran aziizan mu doon loo xamante ne bii nag képp koo xam ne bëgg nga ko moo xam nga nekk ci réew mi wala nga nekk bitim réew na nga jokkoo ak ñun ñu ngi koy weccee vingt huit mille cinq cent njariñ la nag mooy foqat bi foqat dafa bari ay façon ndax façon bu ne la ci nit ñi defar waaye bii nag dafa doon yoo xam ne ñu ngi ko liggéey ci basmala ak turi rawxaan mu ànd ak Suleymaan bii ngeen di gis waaye nag képp koo xam ne am nga ko lépp looy xëccoo lu nekk yaa koy jël incha allahu rabbi mbokk mi yow mi nga xam ni am nga ko moo xam nga yóotu dara te mu jafe boo ko amee day dana la jàppandala lépp looy sàkku foqat mooy loo xam ne dafay ñoddi wërsëg te dafay ñoddi nit ñi ngir ñi wut ci la dafay ñoddi nit ñi ngir ñi ci la dafay ñoddi wërsëg dafay yombal xaalis nga xam ni am na ñoo xam ne seen mbir dafa dëgër lool pour ñu am xaalis problème la waaye kii da koy xëcc ci lu gaaw bu dee looy xëccoo la moo xam kii def concours la moo xam ki xëccoo la ak lu man di xëccoo boo ko amee lépp looy xëccoo ak say morom boo ko jëlul kenn du ko jël te daf lay jural aw nit di la indil alal moom luy forcé la loo xam ne dafay forcé ñu liggéey ko nag ci turu rawxaan ginnaaw ba basmala lañ ko njëkk a liggéey mu ànd ak turu rawxaan yi ñu ko génneel ànd ak xawaati mu Suleymaan bi ak miftaaxul arsaq ak fidda moo tax képp koo xam ne bëgg ko rek na nga jokkoo ñun moom nag ñu ngi koy weccee vingt huit mille cinq cent francs xam naa ni bu nekkoon ni luñ mën a yokk la des na ko yokk bu nekkoon luñ mën a yokk la wallaahi des na ko yokk waaye nag moom loolu mooy mbiram vingt huit mille cinq cent foo mën a nekk incha allah des na la ko yónnee ci kàttan ak suñu borom ak li muy booleel ndax liggéey nañu ko nii ba pare waaye daa am na leen lu muy àndal incha allah am na leen lu mu war a àndal ci kàttan borom. képp koo xam bëgg nga bëgg na ko rek na nga jokkoo ak ñun ci kàttanu ak suñu borom subhaanahu wa taala ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal jàmm ak tawfiix ak sutura wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu